senegal ndax génnuñu Sénégal salaamaaleykum waa Kër Moussa ndax yëf yi seen yëf la di wax ne ki jàkkaarloo ak yéen mu ngi tudd Mamadou Diop nekk secretaire général ànd defar Kër Moussa tey jii li naaj wi tàng-tàng waa Kër Moussa yëpp dañu génn Bolo, donne ben pour jamarlo jakarlo ak archidiocèse bu Dakar ne ko ñoo lank ñoo bañ waye jakarlo ak di jaamaarloo ak filifili ni ko ñoo lank ñoo bañ di li dox suñu ak Dakar hectares 201 hectares vous imaginez waaye fili fili moo jël ñolit wi ndax moom mu ngi ci neuf cent hectares lii lañu ni du wëy bu ñu ko bëggee jël dañuy jaar ci suñu ay bakkan bu ñu ko bëggee jël dañuy jaar ci bakkani waa Kër Moussa gépp dog ko mën a jël loolu na ko àdduna xam na ko Sénégal xam na ko nguur gu bees gi xam waaye archidiocèse bu Dakar na ko xam di wax ne ñu nettali rek walla ñu fàttali ni 89 ba 92 jaamaarloo bu mel nii amoon nafi fi suñu diggante ak filifili filifili yóbbu yëfi ci yoon bi mu yóbboo yëfi ci yoon moom filifili dañ koo neenal ni ko amoo fi tus waaye boobaak léegi bu ngi continuer di forcer forcé bobu lañu né day dak tay ci ni wala ci na wala wa keur Moussa wa Suluf wa Mbir jam wa ndoyen ray ndoyen jor ak genn wàll ci Sébikotane dañ ko dakal ndax li am fi lu mel nonu mu ngay am Sébikotane moo tax tey ñoom ñëwuñu ci conférence de presse di fàttali rek ni talata bii ñu génn tombeeg 25 juin fii ñu taxaw la labbe ñëw ànd benn élément cadars bu ñuy wax Jibi Jàllo nañ ko tudd ndax xam nañ ànd ak l'adjudant jaata bu Descos ñëw fii ci li population bi yëgul bëgg a identifier suuf si waaye bëgg a natt suuf si waaye bëgg koo sàkkal pexe waa ànd defar Kër Moussa jóg fekk leen fii repousser leen dàq leen waaye nag mu am menace ndax jàllo jibi jàllo bu kadasel nee na ñoom dinañ dellusiwaat te bu ñuy dellusiwaat dañuy ñëwaat ak renfort bu ngeen fi ñëwee di ngeen fi fekk ay rang yu fort laaj bi samp nag laaj bi samp mooy naka la Kër Moussa sancee fii lu ëpp junniy xarnu ñii fi ñëw barki Njaay ne ñoo moom suuf si ñi fi ñëw barki Dembo Njaay ñan la filifili la ñi fi ñëw barki Dembo Njaay ñan la la béy la mënuñoo moom suuf si loolu la ñu mooy laaj bi samp nan lañ def fan lañ jaar ba moom suuf si sëñ bi loolu nguur gu bees gi naa toog muy dox toog muy dox googu ñoom moom lañ jëfee ak seen loxo yu gudd am seen ay nit nag ñu ne ca bureau ya ca climatisation ya di def ci ndodd askan wi loo xam ne yëguñu ko loolu lañu ni jekkut jaaduwut tegul ci yoon nañ ko dakkal ndax ñun duñu ko nangu di fàttali fii ma taxaw nii tey suuf bi ma taxaw fii la Aly Ngouille Ndiaye ñëwoon 2 novembre 2021 partie prenante yëpp teew fi maanaam moine yi teew waa Kër Moussa teew daam Diop mais may gis ci jotaay bi teewoon na doomi El Hadj Youssou ci suuf si mu ne yéen waa Kër Moussa continuer leen di bay suuf si yamu ci de mu ne Arsi Joseph bu dakaar bu leen fi tegati seen tànk ci suuf si waa Kër Moussa continue leen di ko bari ba kere ñu koy leeral te loolu ministre bi waxoon muy ministre de l'intérieur l'état continuité la Aly Ngouille Ndiaye waxoon ko loolu ba tey mooy wéy ba jamono bii ñuy wax ak askan wi loolu mooy wéy loolu nag ñoom moom lañ teggi xotti wor mooy loolu sànni ko ci àll loolu la ñu ne du fi am tey du fi am ëllëg waye nak dafa am lo xamne ne lu ñu gëm la ñun muy jub jubal ak gonti wa keur musa japp nañu ni te loolu mo wër ni ñiñ séqal yëf yi dañoo jubadi kon jub jubal jubanti na leen tek ci yoonu njub wa keur musa dañoo japp ni archidiocèse bu Dakar ak filifili dañoo jubadi ndax ak nyut njaaj njub lang lañu def ma ne dañoo am ay titre kon ñu ngi ñaan ci nguur gu bees gi slogan boobu mu woote ñu gëm ko nag ndax gëm ko moo tax askan wi tànn ko na jubbanti saay-saay yooyu le na jubbanti malfaiteur yooyu le ndax kat lu tolloog vingt mille am ñooy yeewoo fii nga bëgg a jaar ci seen kaw def leen ab doom yow boo tuddul malfaiteur boo tuddul assassin boo tuddul criminel ñun xamuñu lan nga tudd te loolu mooy li adduna bi yëpp constaté waaye nag eggaguñ ci xeex jàmmaarloo dóorante eggaguñ ci lu tax ndax ñun ay sénégalais lañ bon teint te sénégalais dañ koo xam ci hospitalité maanaam dalal gan yaatal ko loolu moo leen fi bàyyi ñoom loolu moo tax tey jii ñu ñëw bëgg ñoo bu ndoxatal waaye loolu lañ ni dafay dakk te bo gisee it dañoo yoonu réew justice réew dañoo am yaakaar ci ne dana dello wa Kër seen momel dana dello wa Kër seen suuf Dak fili-fili mu fi ak njabotam ndax dara waye dak arsu bu Dakar mu fi ak njabotam ndax dara li la ni son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye

pour tuur fi seenu ñaq pour sàmm fi waaye pour suba ñu dëkk fi suñu suuf suñu bakkan bàyyi ñoo suuf si rek mooy jàmm ci ñoom suñu suuf suñu bakkan waaye di sant autorité yi nga xam ni ñu ngi ci suñu ginnaaw autorité yëpp laay wax nag autorité yëpp sans exception pour bañ a lim ndax boo limee da ngay juum di sant góor di sant jigéen di sant mag di sant ndaw Kër Moussa tey mën naa kontaan ci boppam KMTV c'est une chaîne YouTube bu leen indil ay xibaar yu wërté lèr ci politique économie santé éducation religion sport ak yenen événement képp ki nga xamné ne yaa ngi bàyyeekoo Kër Mousse moo xam nga nek ci biir wala ci biti di nga mëna sétane séni seeni événement wala match navétane yu gëna neex ci biir KMTV KMTV ñëriñu wa Kër Mousse